Kutinyam dikulinam jamle sabul kasumai. sama mbokku balante yi bacol na ga alla magin mbadi mbandikol ana kamoy laal mbal be konton na mbal sewota bake bandiraɓe sehlaɓe min salmini on o fogole sereer mehe simna nun sama mbokku majaki ma butakalo sama mbokku mankañi ulef sama mbokku wolof yi maa leen di wax maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm suñu mbokku saraxule yi ñu leen di wax ani soxoma yaakaar naa ne fàttewuma kenn fàttewuñ kenn merci beaucoup merci beaucoup xam leen ne man mënuma leen fay gis naa seen taxawaay tout d'abord maa ngi nuyu monsieur le premier ministre muy candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar monsieur Amadou Ba ñu koy nuyu bu baax di kontaan lool ci teewaayam fii di nuyu également ministre yu nga xam ne ñu ngi fi toog di nuyu suñu xarit Abdoulaye Baldé nga xam ne wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na moom moo tax ba ñu intégré l' international démocratique centriste monsieur Abdoulaye Baldé ñu ngi lay nuyu bu baax. di nuyu madame le ministre Annette Seck Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax suñu sœur bu baax la moom mooy suñu ministre ci région de Sédhiou di nuyu également kilifa yu fi teew yépp ñu ngi nuyu le président du conseil départemental de Goudomp monsieur Bouka Moussa Bokoum ak maire yu nga xam ne ñu ngi fi di nuyu monsieur le maire de Djibanaar di nuyu monsieur le de Diendé di nuyu monsieur le de Bogal di nuyu monsieur le maire de Ndiamakuta di nuyu monsieur le de Djiréji di nuyu monsieur le maire de Sali Escale di nuyu honorable député yu nga xam ne ñi ngi fi di nuyu kilifa yu fi teew yépp ñi ngi nuyu suñu xarit honorable député Abdoulaye Diagne ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu le DG de l'ASPT Pape Mahawa Diouf di nuyu également le président du conseil d'administration de la SAPCO docteur Amadou Tidiane Diba di nuyu également PCSU ASPT merci beaucoup merci beaucoup monsieur Thiaye Diaby di nuyu kilifa yu fi teew yëpp ñi ngi nuyu également kilifa diine yu nga xam ne bàyyi leen lépp ñëw tewee ndaje bi wax dëgg yàlla amuñ seeni fay mais ñun ñi ngi kontaan jël kaddu tey pour sargal son excellence le président de la république Macky Sall dama bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax a tey tey tey bés bu mag la ñu ngi feete suñ juróomeeli anniversaire bu parti synergie pour un développement durable SDD yoonu naataange suñu yegsee fii tey suñu yegsee fii tey gannaaw yàlla du man mais yéen ñii la militant yi yéen yéen tax ñu yegsi fii donc man awma seen fay am na ñu nga xam ne man gis naa ñu nga xam ne huit heures si suba leen ñëw fii Grand Théâtre ñu bëri amaana sax ñibbi neen parce que si suba ba tey ñu ngi fi taxaw man awma seen fay dama leen di bàyyeeg allahu subhanahu wa moom moo am fay donc maa leen di gërëm bu baax parce teen wax ne la in zakartum la azidannakum te wax ne ne également man lam yaskuru naasu la yaskuru la donc man il faut ma gërëm leen bu baax merci beaucoup jeunesse bi merci merci merci ju dégloo lu may wax dafa am solo lan moo tax ñu ne dañu sargal son excellence président la république Macky Sall man yàlla dogal na bu ma duggee ci politique yàggul ñun ñu ngi dugg ci politique en 2018 waaye buñ tàmbalee ànd ak moom ba tey dañu ànd ci ngor ak teraanga mu respecté ñu lool donc ak lum mu def ci réew mi fii Sénégal ci 12 ans wax dëgg yàlla loolu gisuñ beneen président de la république bu nga xam ne def na ko fi sur tous les plans nag est que Sénégal amoon na terre est que xalaatoon neen en BRT stade Maître Abdoulaye amoon na fi jàmm ju am Sénégal rek dafa doy nous som entourés par une ceinture de feu Sénégal jamono ji découvrir neen pétrole découvrir gaz suñ amuloon président bu nga xam ne wax dëgg yàlla taxaw na bu baax konoon jamono ji maara day taali Son Excellence le Président de la République Macky Sall m'a fait confiance pour la première fois en me directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal, qui a abouti à la reconstruction de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis nga xam ne mettre nañ ko en service en date du 7 décembre dernier ñu ne déet na waay mu ñëw nañu Souleymane renouveler naa la sama confiance fal naa la à la tête de la société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal ñun ñun nag ay góor leen te góor moom doo wor doo fen man xam ngeen ma yéen militants yi ku ma wax lu ma mënul dama lay naan mënuma de mais lépp lu ma wax dama koy def parce que den wax ne den wax ne den wax ne ñu déglu ñu dégloo ñu den wax ne jaa al xaqu wa zaqa al baatulu in al baatila kaana su dëgg ñëwee su dëgg ñëwee fen day randu ñëpp xam ne ne ñëpp xam ne ne ñoom xam na ne allahu subhanahu wa moom kese moom mooy joxe nguur de moom moo ko wax xuli allahuma malikal mulki tuutil mulka man tasha kenn mënul am nguur si pexe kenn mënul am nguur si fen kenn mënul am nguur si violence nguur si luñ ko mën a amee lan mooy yàlla yàlla tudd ko su ko yàlla tuddee lool ku si mën dara yàlla moom mooy faxaalun li maa yuridu yàlla ma tayam la yor yàlla ma tayam la yor n'est-ce man lu ma jox amul kenn kenn kenn kenn ku fi taxaw si mbooloo mi ne jox naa ko cent francs pour nga ñëw taxaw fii déedéet amul da ñëw da ngeen ñëw braver chaleur bi lu may wax dafa am solo lu may wax dafa am solo xam nga ku mobiliser rek ñu ne dangay ngay fay ay nit man de amul kenn ku ma mën a fay te nit kenn mënu ko jënd sénégalais yi jamono ji dañoo conscient kenn mënu leen nax man nag dëgg laa ànd ak yéen moo tax fu ma leen woo noo leen di def kon jeex na jeex na jeex na jeex na ñi ngi nuyu ñi ngi nuyu président su ministre moor Ngom wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm bu baax ku nga xam ne la suñ grand frère la daf ñu conseiller ci bépp fànn ñi ngi nuyu également monsieur le ministre Augustin Tine seen teewaay rafet na te kontaan naa ci lool waaye balaa may continuer dama bëgg ñu jox cadeau bu SDD préparel son excellence le président de la république Macky Sall ñu jox ko monsieur le premier ministre par yàlla dogal na moom le président Macky Sall tànn pour que mu doon candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñun nag yàlla dogal na ñun duñu naxe jamais de la vie yàlla dogal na président de la république Macky Sall suñu diggante weesu na politique moo tax wax dëgg yàlla kum ñu joxoñ ñun kooku la xool su jëloon carton bi ne ñu ñun kii laa joxoñ su booba ñun kooku la ñu xool te kom yàlla dogal na comme yàlla dogal na joxoñ nañu premier ministre Amadou Ba incha allah rabi SDD yoonu naataange moom la ñu jàppale incha allah pour qu'au soir du 25 février 2024 ñu gagné dès le premier tour incha allah rabi. merci beaucoup merci merci merci merci merci loolu dafa am solo lool waaye élection. élection élection kenn du ko gagné ci caaxaan noo leen mobiliser tey noonu laa leen demandé ngeen gën a man fu ma leen woo ngeen wuy si donc wax dëgg yàlla maa leen di wax la jeunesse est-ce que pare ngeen pour le combat jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi ñu ngi leen di laaj ndax pare ngeen ñu ngi laaj ñu ngi laaj waa SDD yoonu naataange ñu nga xam ne ñu ngi Casamance est que al Taliban merci beaucoup jërëjëf jërëjëf alabarka jërëjëf jërëjëf jërëjëf dama bëgg lu ma bëgg lu mooy yéen ngeen jóg taxaw ne président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall président Macky Sall Sall jërëjëf président Macky Sall jërëjëf président Macky jërëjëf te ñu sargal bu baax a baax a baax pour lépp lu nga xam ne defal na ko réew mii di Sénégal Sénégal mënuñ ko fay wax dëgg yàlla jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa leen gën a kontaan maa leen gën a kontaan munu ma terminer munu te du ma féliciter ak remercier les membres du bureau politique di parti SDD Yoonu Naataange seen taxawaay rafet na ñi ngi féliciter également les coordonnateurs départementaux ñëpp gis neen ñëpp gis neen parrainage bi ñun parrainage citoyen la ñu def en 51 jours nous avons réussi à collecter plus de 223 000 parrainages citoyens loolu nag loolu nag loolu nag ku mu doyul xaw lu lay doy te jamono ji suñ siège SDD ñu nga faat plus de 80 000 parrainages donc loolu loolu su amee su amee du sama njàmbaar du sama kattan parce que man fayu leen dara da ngeen ma bëgg ma bëgg leen loolu su amee loolu ñun xam ne ne la hawla wala quwata illa billah amuñ katan amuñ man-man yàlla subhanahu wa la donc ñu ngi ko koy santé waaye di leen gërëm yéen ñii di militant parti S2D yoonu wax dëgg yàlla kontaan naa kontaan lool te gën leen déterminé wu gën leen préparé wu nous avons assisté à tous les combats merci lu may wax c'est important fii Sénégal Sénégal Sénégal ñoom xam ne ne bu affaire yi bu affaire yi tàngee ñëpp daw ñun dañoo taxaw dañoo taxaw dañoo taxaw musuñu daw merci beaucoup merci jërëjëf merci merci merci lu may wax dafa am solo ñun parti SDD yoonu naataange yàlla dogal na bu affaire yi méttee dëgg ah ñu bëri daw leen de waaye ñun musuñ daw dañoo mus a taxaw parce que ñun lu ñu gëm mooy que population bi soo àndeek ñoom lan ngay ragal doo ragal dara moo tax waa Kër Massar defoon naa fa doxantu de 16 heures à 2 heures du matin ma demoon naa ni ataaya a ñaari tali demoon naa naani café également à golf demoon naani café à Darou Khan localité yu xam ne demaguma fa waa parcelle préparé leen dinaa ñëw naan si café waa Médina préparé leen dinaa naan si ataaya waa Podor dinaa ñëw insha allahu rabi waa Matam dinaa ñëw dinaa ñëw ñu naan ataaya waxtaan merci merci merci merci merci merci beaucoup merci beaucoup merci merci jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf xam naa ne premier ministre jóge na ci réunion ak ñu mu àndal gudd na ngeen jéggal ñu waaye wax dëgg yàlla tey fête la pour suñu parti SDD yoonu naataange c'était pas évident en cinq ans ñu am lu nga xam ne si réew mi yëpp la loolu dañ koy santé yàlla bu baax dañ leen di ñaax ngeen gën a taxaw jënd carte de membre yi ngeen continuer di installer les cellules de base du parti di préparer wu pour élection présidentielle de 2024 nga xam ne incha allah rabi ñun ñëpp ñu engagé wu ñu gagné dès le premier tour. donc kontaan naa lool albarka alma kayro si yàlla merci beaucoup jokko njal jokko njal a paax alabarka alabarka xam naa dañu jox cadeau bu nga xam ne moom la ñu sargale président la république Macky ñu jox ko premier ministre Amadou candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar maa leen di gërëm di leen sant bu baax jërë ngeen